ay fan yu néew moo des balaa jullit tabaski gi jamono ji nag foo tourné ci Dakar ay mbaaru xar ngay gis ci kaw tali bi waaye de ñiy jaay xar yi ay clients yi ñëw ngir waxaale rek lañu gis. wax dëgg yàlla clients yi nag moom man parce que def naa fi parce que une semaine waaye clients yi moom daanaka dañuy ñëw di laaj rek waaw bu ñëwee daal dañuy laaj waxaale daal di dem ne ma ñëw waaye. man naam daal ñu ñëw waaye accès gunu daal wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne dañoo am problème fu ñu koy denc fu ñuy denc xar yi dañuy am ñoo xam ne bon dañuy dañuy daw malfaiteurs yi parce que mënoo jënd sa xar yóbbu ko sa kër ñu jël ko il préfère nag ñu xaar ba mu des une semaine wala cinq jours wala dix jours ñu doog a jënd waaw mais affaire yi moom client yaa ngi ñëw di xool di waxaale di dem wante de xar am na ak façon boo bëgg te njëkk yi tamit seerul. non xar seerul sax billaay wallaay seerul sax seerul sax parce que ay ay comme yii nii ay cent cinquante waaw cent soixante xam nga loolu yooyu seerul. nekk ak sa soxla fu mu toll rek ak sa fu mu toll boo ñëwee rek yàlla mën naa def sutura lépp faju waaw xar moom comme ki ma doon woo nii léegi xaru cent mille cent vingt am na loolu am na fi donc kon. lu fi ay bëgg rek mën na nekk daal. waaw man moom am naa ay xar yu jar quatre cent cinquante mille am naa xar jar trois cent cinquante mille am naa xar yu jar cent cent vingt cinq cent trente am naa xar yu jar cent cinquante. instant yi nii moom waaw parce que ñun dañoo am ay clients yoo xam ne spécial lañ chaque année ñoo leen di jaay donc am na ñoo xam ne ils préfèrent xar yu mag am na ñoo xam ne ils préfèrent xar yu yem am na ñoo xam ne dañoo pré lu ñu am rek jël mais fi mu ne nii ñun dañoo am clients yoo xam ne dañu leen jaay ay xar yu mag moo tax ñu am xar yu mag yi quoi waaw. am nañ ay laadum am nañ ay caaje am nañ ay asawat ñu nekk fii ci banlieue te ñu lal seen mbaar ci kaw tali bi Ibrahima Ndiaye ak ay ñu ñam ñu ngi bàyyi xel ci defkatu ñawteef yi. fii dëgg la loolu moom am na loolu moom am na moom waaye wax dëgg yàlla xam nga am na nooy nooy nooy tooge daal ak nooy nooy nooy seeree daal loolu boo ci bàyyee xel moom amaana du am daal. waaw dañuy fanaan ñun ñaar ran ko wala ñu doon ay ñett bu kii yendoo ki fanaan noonu lañ koy def daal kii dem noppalu noonu la ñuy def. bon pour l'instant nii moom amuñu amaguñu problème boobu pour l'instant nii amaguñu problème boobu parce que am nañuy fanaan am nañuy ñuy yendoo donc boo yendoo ba 21 heures 22 heures relève bi day ñëw fanaan yow boo xëyee 8 heures wala 9 nga ñëw eggali mais pour l'instant nii amaguñu problème malfaiteur. waaw ah, mais pour ñoom on veille on nag aussi quoi. bu dee daaw ak mbas mi. amoon nañu jafe-jafe ngir jaay ni mu ware ren nag am na ay coppite yu baax te ñu ngi xaar yeneeni xar balaa tabaski bii di egsi ngir jaay comme ni ñu bëggee.